mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kuréel liggéeyal ku tedd ki di kuréel guy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci jàng ak jàngale lépp lu jëm ci wàllum xam-xam ci anam yu wuute ñoo am mbégte dina leen yëgal ak a woo ak fàttali benn ci événement yi ñuy amal muy rabion safar di ñeenti fan ci weexu safar ñu koy waajalee màggal Tuubaa gu mag yi war a dëppook altine le 21 août 2023 ñu koy amalee ci bâchu Hizbut Tarqiyyah bi nekk ci buntu kër Cheikh Mouhamad Fadel Mbàkke jàkkaarloog jumaa ju mag ji bis bi ñu ciy amal ay jongante ak sargal jongante bu njëkk bi muy Moussa Diala di tari xasida ñaareelu jongante bi di daaju mag ñi ñu jël ci ay tuutànk ànd ak ñoom daaju mag ñi ren gi ñu tànn ci daaju sëriñ alhaaji Cissé ñetteelu jongante bi di xifsul mutoon di mokkal téere sëriñ Tuubaa yi jëm ci wàllum xam-xam ren ji ñu tànn ci masaalikul jinaan bis bi daañu ci sargal benn daayira ren gi ñu tànn ci daara isbu tarxiya sargalaale benn jàmbaar ñu tànn ci sëriñ Demba Fay di jàngalekatu xam-xam waaye di ci fàttaliku sëriñ Abdourahmane Mbàkke kuréel liggéeyal ku tedd ki di ci woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi bàyyiwul kenn di ci woo mbooleem daayira yi ñeenti fan ci weeru safar lay doon yemook altine le 21 août 2023 ci buntu kër Cheikh Mohamed Fadel Mbacke ci bâchu Hizbut Tarqiyyah bi 15 di 3 ci bëccëg la tàmbali mise en place bi 19 ñaan ñëpp yeeweeku di ñaan képp ku ci ñëw mu sàmmonteeg mbooleem li sëriñ bi tere ci dëkk bu sell bii di Touba képp ku ci bëgg ay leeral mën na woote ci numéro bi di 77 liggéeyal ku tedd ki ñooy ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wéer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 ñu waajal bisam bu bi nga xam ne moo ko digle woon tey nag bëgg a waxtaan ak mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tomb boo xam ne am na solo lool ci diine am na solo lool ci tariqa muy li ñuy wax jaayante di ndokkeel mbokk yi nga xam ne ñooy taxaw yëngu yi di kuréel gi ñuy wax liggéeyal ku tedd di leen ziar di leen jaajëfal ci liggéey yu am solo yi ñuy lu ñu xam la ci diine nga xam ne ci lislaam nit ñi lii tax ñu xam ne bokk nañ ci diine ji faw day jaayante ahad la dox diggante eh, kilifa gi ak kim yilif ñu war a dox jëm ci yàlla ci kaw déglu ndigal ak di ko jëfe moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim dañ doon jaayante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci asama wa taa mooy dañ lay déggal dañ lay topp li alxuraan dina ci ay misaal tagg ñi nga xam ne ñoo doon jaayante yonent bi alayhi salaam ci taxta sajara xam ne bayaatul àq ba bu njëkk ba bu bayaatu ridwaan yëpp ay jaayante la yoo xam ne lislaam xamoon na ko bi fii yonent bi sallallahu alayhi xalif bu fu ma sa ñëw it nii dañ ala sami wa taa booba nag kilifa adduna gi ak kilifa diine gi kenn kilifa gi bu ñu jaayante moom topp ko ci lépp la jamono dox nag beru am ñu ko teg loxo diine beru ne ci yeneen loxo ñuy wax kilifa gi ñuy wax kilifa àdduna ak ci dëgg-dëgg li doon cosaan mooy genn kilifa goo xam ne diine ci biir diine mu yilif ay àdduna xam ne bu ñu jaayante moom la ñuy jaayanteel ci topp ndigalam déglu ay ndigalam ak di ko jëfe loolu daa bokk ci yi nga xam ne mënut a ci diine yi Ibnu Islam waxoon na ne képp ku faatu te ak jaayante nekkul ci aw loosam ci kàddu la faatu maanaam dund amoo kilifa du lislaam du diine maanaam wax yi dëgg loolu kii jiite ñu topp ci ginnaaw loolu nag sufiyanke bi ñëwee di woote jëm ci yàlla di ànd ak ay ndaw di womat ci yoonu yàlla dañoo jël baatu jaayante boobu mu tam boole ko ci seen doxin duñ forcé kenn duñ gétan kenn waaye ku ñëw bëgg ànd ñoom nag dañuy wax ne kaay nag fasante yàlla ko lëre ci lekkat yoon wii nga xam ne daa jox dox dañ ci jox jëm ci yàlla fii nga ci jaar dinaa ko jaar xam ne day taalal sa loxo loolu mooy cosaan li yéen ay sam daan taalal loxo saxaaba ñu tekki loxo bu dee góor bu dee jigéen da wax rek waaye kon cosaanul jaayante mooy lislaam moo laajoon kilifa am ñëpp nongu ne mooy kilifa yi firndeel ko ci ay wax ak bi waa Sufyaan ki ñëwee jël loolu wax ne ku ànd ak ñoom nekk ab saalik faw da ngay ñëw nangoo ne bokk nga fii ñu jaar da nga fi jaar kon yaa ko warlu war cee topp ngir àndox jëm ci yàlla mu yomal ci loolu mooy li tu tudd jaayante anam gi nga def rek mooy kii ko dëgg bëgg ci tasawuf ay anam am na ñoo xam ne boo mos a ñëw mbubb lañ sol moo xam ne xeet xal lañ ko daan tudde euh, mooy firnde ne boo ko nangoo sol rek yow jël nga engagement ne fas nga yéene wéy ci am ñoo xam ñëw nag wax ay ay baat jaayante maa yow ala sànni wa taa ñi di wax aslamtu nafsi ilay foofu it mat bàyyi xel aslamtu nafsi dëgg-dëgg liy jublu nafsu an nafsul amaara bi suu moom la nit ki di jébbale bëgg ñu defaral kooku nga xam ne dañ koy womat di xool moom nafsu bi li ci nekk ci ay jàngoor ñu fexe ba fóot ko mu set waaye duy ko mu fees diggante taxliya taxliya la sëriñ bi seexal moom moom kon dëgg-dëgg loolu moo tudd jaayante nga xam ne lu am cosaan la ci diine suufiyanke yi nag bokk na ci seeni cosaan moom maanaam nit du bokk ci ab tarixa te jaayante woo anam anam jaayante rek mën naa ci niñ ko waxee waaye anam tarixa bu ne yoon moom teg na ci lay ku ci bëgg bokk faaw ko jaayante ndax mooy wane ne jël nga engagement ci ni yow kat yaa gis lu baax lii ñu ne la kat fii fi jaar nii lañ bëgg a doxee nga ne nangu naa ngir doxee noonu sikk yi ci man nangu naa ñu dindil ma ko luñ ma teg ngir mu dañ nangu naa ko daa ko dégg loolu yaa ko jël moo tax kenn du ci forcer kenn su ko defee rek bu ko nit xasee jël nag loolu digg bu borom moom kóllëre gu ñuy sàmmul la te yàlla daa sàmmul kóllëre moo tax ku ko fas fasanteeg kilifa rek euh, loolu lu ñu war a euh, sàmm la lu ñu war a euh, xel la. bu ko defee nag eh, ki ñu koy defanteel mooy kilifa ndax dafa mel ni day ku bëgg a dox jëm ci yàlla xamul yàlla xamul nu ñuy doxee jëm ci kon day wër ku xam yàlla mën ko caa yóbbu moo tax ab sëriñ lay doon war tax nga sëriñ mag buy tudd tudd waxtu wane kilifa day wax ne kilifa mënut a ñàkk kilifa mënut a ñàkk waaye nag kilifa gu mat kilifa lay wax fa kullu man adima cheikhan murshida fa cheikhuhu cheytaanu xaytu qasada néew na nga gis sëriñ fu mu tudd baatu sëriñ cheikh te wutul ko siba waaw murabbi murshid euh, mula euh, yooyu la tudd lazima mutia la yamil ak foo xam ne euh, qaid sëriñ bi boo xamee nit ki dem boo bëgg a dox ci yàlla bokk ci ay sartam day ànd koo xam ne aabid lay doon waaye xaay lay doon mooy day dund diine waaye comme ànd ku ànd ak moom it la fexe ba nga dund diine kon waxtu wu ne buy melal ab sëriñ day wax melokaan yi tax ñu ne ab sëriñ la loolu nag ku xas na ci moom kooku la ñuy jaayante kon ku bëgg a sóobu da wuti sëriñ bu matu sëriñ nga jaayante moom jaayante gi nag ala sabi wa taala mooy da ngay topp ay ndigalam bàyyi ay ndax moom ay ndigalam ndigal yàlla la ay tereem tere yàlla la ñooñu dañoo ci yow yéen bi alei ndax alolama waratul ba fi yooyu ak sa nekkee nit ñi dañoon daayante moom wax la sama taax bu dig la ñu def bu tere ñu bàyyi ba fi jógee bàyyi fi ñoom fi bàyyi ñoo ñoo wutu loolu sëriñ si kon taxawaay boobu la ñu amee bu dee sëriñ boo xam ne li tax ñu ne ab sëriñ daje na ci moom loolu mooy wàccuwaay kon ku wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay doon ci nit ñi ñu ànd ak moom ci loolu la kon di jaayante ak moom ngir dox ci jaayante boobu su ko defee nag jaayante boobu boo xasee def kóolóore goo fas sa diggante si borom moo tax lu jaagee ne ku jot ñu def ko mbir la moo xam ne kon ay ay ay ay muwasafaat la ay yoo xam ne day ci nit saalik bi day doon koo xam ne yàllaa ko tax a jóg du mbirum par parlo damaa bëgg a dox ci yàlla kii xam na yàlla mi ngi ci yoon kon na naa moom mu teere ma ci moo tax euh, day cee sart kon ku mat kilifa moo tax liñ xam ñiy jaayanteel ñëpp ay góor la doon ñu xam diine di dund diine di ko dundal kooku la ñuy jaayanteel ko defee ànd ak moom dëgg-dëgg loolu moo tudd muy ponk boo xam nag ci lislaam bu dee réewum lislaam mënu ko ñàkk waaye képp koo xam ne da ngaa sóobu yoonu tasawuf it mënoo ñàkk koo jaayante euh, sëriñ Mbacke Bousso radiyallahu anhu sëriñ Moussa Ka ko laaj nit koo xam ne dafa jaayante ko sëriñ sëriñ ba génn àdduna muy def tontu woon ko lu solo dana ko bu fekkee ne dana ko ab ab saalik atteeb gone guy nàmp bu yaayam faatoo te fekk mata fer dañ koy feral soxla wut zëru juy ju mot la nàmp la nga xam ne kon bu fekkee ne kii nga xam ne li tax ab sëriñ jaam mooy sóob la ba nga tegu ci am na sëriñ bi dafal na ko doo fee jógee lii yoon ba xam ko tax teg la ci kon bu wàcc waaye ki nga xam ne dañ ko doon wan yoon ak jottu àgg mooy ki ki ki ñu doon nàmpal mënatu ko te fekk yaayam faatu faw ñu wuti kooku àggal na kon saalik bi nga xam ne daa suubu ne ci loxo ab sëriñ sëriñ ba génn àdduna te ab liggéey matut faw mu ko kooku matul kon faaw loolu man na bàyyi xel xanaa jaayante kon dóorut mbir mi màggat bu fekkee ne te taxaw ñu jaayante yow napp nañ yi ci nag am na joo xam ne euh, ànd ci doxin wa fa lay tudd yees loog yëpp dañ ko tudd xam ni dana ànd ak nit mu jógee fi mu yeeslu ci keneen nit maanaam loolu ànd bi rafet bi ak jiital wut kilifa jiital ko la ci jublu waaye dëgg-dëgg li su jaayante moom nit ki bu ko xasee def benn sóob nañ ko moom àgg na léegi sóoboo ci des loolu da koy defal boppam kooku ne fi am naa fee nekk yoo ci bu dee noppeeku dañ ko ruuti ku àgg ku àgg waaw mu du yeesal waaye wuti waat kooku mottali la li ci des nag yeesu lu nga xam ne ànd dox la mooy am nos la nos am kilifte war a am am kuy jiitu ñëpp war ñëpp dañu war a ànd ak moom ndax xam nañ yoon wi waaye nag aw yoon saa bu ci mbooloo suba ñu nos ko ngir dox mën a rafet gis bu kilifa demee ñu bari dem di yeeslu yeeslu moom mooy sóobu yoon wi moom kilifa ga nga moom jóge bi du tax ñu dagg loolu deful ko nag li ci des nag noosu àdduna la boo xam ne. mbooloo bu àndee kay kilifa ga saa bu yàlla indee mu muy kilifa ñëpp war nañoo nangu ne mooy kilifa kon yees yees yeesu googu foofu lay ki nga xam ne moom dañ ko doon tarbiyee noppeeguñ ci moom moom daa war a wuti beneen sëriñ bu ko àggal loolu lenn la ci liñ bëggoon a leeral ci bunt bi mu bu am solo boo xam ne eh, lu mat a bàyyi xel waaye lu mat a jàngat la lu mat di leerlu it ndax engagement la boo xam ne ku ko xas jël na nga xam ne sa di ak sa borom te inna al maa ngi jégalu ñëpp di leen baal wax di leen ziar di leen ndokkeel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kuréel liggéeyal ku tedd ki di kuréel guy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci jàng ak jàngale lépp lu jëm ci wàllum xam-xam ci anam yu wuute ñoo am mbégte di leen yëgal ak a woo ak a fàttali benn ci événement yi ñuy amal muy rabion safar di ñeenti fan ci weexu safar ñu koy waajalee màggal Tuubaa mag yi war a dëppook altine le 21 août 2023 ñu koy amalee ci bâchu Hizbut Tarqiyyah bi nekk ci buntu kër Cheikh Mouhamad Fadel Mbàkke jàkkaarloog jumaa ju mag ji bis ñu ciy amal ay jongante ak i sargal jongante bu njëkk bi bi muy Moussa Diala di tari xasida ñaareelu jongante bi di daaju mag ñi ñu jël ci ay tànk ànd ak ñoom daaju mag ñi ren gi ñu tànn ci daaju sëriñ alhaaji sise ñetteelu jongante bi di xifsul mutoon di mokkal téere sëriñ Tuubaa yi jëm ci wàllum xam-xam ren gi ñu tànn ci masaalikul jinaan bis bi daañu ci sargal benn daayira ren gi ñu tànn ci daara isbu tarxiya sargalaale benn jàmbaar ñu tànn ci sëriñ Demba Fay di jàngalekatu xam-xam waaye di ci fàttaliku sëriñ Abdourahmane Mbàkke kuréel liggéeyal ku tedd ki di ci woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi bàyyiwul kenn di ci woo mboolem daayira daayira ñeenti fan ci weeru safar lay doon dëppook altine le 21 ci buntu kër Cheikh Mohamed Fadel Mbacke ci bâchu Hizbut Tarqiyyah bi 15 di 3 ci bëccëg la tàmbali mise en place bi 19 heures la ñaan ñëpp yeeweeku di ñaan képp ku ci ñëw mu sàmmonteeg mbooleem li sëriñ bi tere ci dëkk bu sell bii di Touba képp ku ci bëgg ay leeral mën na woote ci numéro bi di 77 liggéeyal ku tedd ki ñooy ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke xalif général منيبا أنسا وسفي رهبان